السلام عليكم ورحمة الله بوكين لين ني دي لين زيار نبا الحق دي لين بار نيان برم سبحانه وتعالى بولين جغل نيوتي مسألة رقم 82 باتاي نيغي تي تيم تولوك احكام الحاضر الصحيح الفاقد للماء من لا يجوز أو العادم للماء إذا كان متوضئا أو مغتسلا العادم للماء إذا كان متوضئا أو مغتسلا فإنه يكره له إبطال وضوئه بحدث أو أو بسبب أو إبطال غسله بجماع ومحل الكراهة ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره مسألة mandargay juróom ñetti fukk ak ñaar numéro 81 ñu jàng ba tey sibeelu ki yàq jàppam ci tayeef te amul ndox mu mu jàppe mu ne nañu ki jàpp wala mu sangu farata ba noppi di yàq njàppam ci tayeef te amul beneen dox lu dul lu jëm ci wàllum faj yu jàngal loolu mooy fiqal ibadat yàlla mooy ki kawe te xam lépp lu jub bu ñëw ci masala bi buñ ko doon tënk tey dañ wax ne ki nga xam ni dafa jàpp ba noppi wala mu sangu farata ba noppi amul beneen ndox bu fi des boo xam ni waxtu wu jotoon mën na caa jàppaat kooku dañoo sib mu yàq njàppam ci tayeef maanaam li yàq njàppam di ko yàq ci loo xam ni sago la daal kooku dañ ko sib moo xam yàq bi ci yey nelaw la nelaw yi ci sabab la bokk wala yàq bi ci xadas la maanaam luy génn ci moom te mu ànd ak sago te tey ko loolu sib nañ ko ci moom noonu tamit ci nga xam ne dafa sangu farata ba noppi te waxtu wi ñëwaat ndox amaatu fi ndox ñu mën a sanguwaatee farata mooy yàq sangu woowa ci jaxasoog soxna wala yu mel noonu yooyu dañ koo koo sib loola la ñu dars bi di jàngal du loo xam ne nag lu xaram la lu ñu sib la rek parce que li bañ liñ koy bañal mooy tiim ba tiim wow muy tiimaat ci waxtu wala di ñëw dañoo bëggoon mu garde njàpp lool ba waxtu wi ñëw mu mën caa julli incha allah loolu mooy suñ darsi day yan yàlla defal digg ak topp bu ci am lu muy leerlu rek mën na koo topp ci Ahmadiya TV wala Aynu Maadi TV buñ ko xamee dinañ ko tont ci kattanu yàlla subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh